nang na dugar kapitaine ngi noonu at dugar ndeysaan arbitre sifflé na bu Thiaroye ak Dougaré capitaine moo ñu woon ginnaaw Dougaré lañ jàkkaarloo ndeysaan le 8 mars journée sargal jigéen ndeysaan ma ci sargal samay jigéenu bopp ndeysaan Sofia Ndour ma ngi si journée bi di sa wàcc waaye bu wér a wér yow ak yaay waaye soxna may séeri maas nee naa la kenn du si man ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu Dougaré Douar ak capitaine Douar <laughs> ak capitaine. Saan Douar. la capitaine bu Thiaroye. mais Douar ak capitaine. waaw mais capitaine day passé bi dafa mel ni arbitre bi dafa mu dóor. waaw looloo ko yàqal. mu ñëw jël Douar. Douar bi fi mujj. waaw tijji da ko daan. moo tax sànq. moo tax sànq bi mu ñëwee dama ko. baadoo def la woon mu ni ma déedéet. la woon woon na. waaw la woon woon na nañ ci xam dara ndax addu baa ngi fii sifflet baa ngi fii te day àtte après nanu xool. mais di bisu jigéen ñi ku la xam xam Bamba Thiam yaayam sama yaay mooy sama xarit moo tax ndeysaan fonk naa jigéen loolu. ndeysaan mais kenn ku ne nga eh, jël na ko takk na ko ñu xool na ko doo tànk wala nañ génn nañ ñoom ñaar génn nañ ñoom ñaar. ñoom ñaar génn nañu. waaw soo xoolee capitaine dafa mën a dugaat raw tolloog wet gi. laay ndeysaan. xale bi xale war a am adversaire la. Bamba. waaw xale bi xale war a am la moom Sa Thiès mi sama ginnaaw. Sa ay victoire la toog. waaw ba léegi nanguwuñ kaa jël. laay saan capitaine. ndeysaan. xale yaa ngi noonu capitaine a ngi noonu. eh capitaine jam na dugaar arrière capitaine ak dugaar. capitaine ak dugaar dugaar mooy mooy dox di ñëw. dugaar ay ndaamali. mooy dox di ñëw. capitaine mooy njool mi. mu ngi dox di ñëw. tàppante nañ ndeysaan. ndeysaan nee na caane doy noonu sama ginnaaw. ëñ na ko mu bañ. yaakaar na moom capitaine. baadu la mbokk baadu la mbokk eh, xale yi génn nañ saako yi ñu ngi bëri si ñaar. Sane capitaine Sane capitaine am na avertissement am na deux avertissement moom capitaine am na deux avertissement Bamba Thiam. deux avertissement. Ah. xam nga kon nag point ay point mi ngi commencé wàññeeku. maanaam ah, arbitre gauche droite la mais capitaine doo dalul. soo xoolee kii di Dugar toujours day bi rek dox utal si capitaine. bilaay dëgg la. waaw. man c'est que ndamala ak ndaama la. njool ak ndaama la. njool moo tax ndaama li da koo soo xoolee Dugar dafa fermer garde bi dox utal si ko. laaj ndeysaan dafa seene garde bi. si ko. dóoral ma dóor dóoral ma dóor eh percule waaw lii moom bon xeetu dóor la ñu xeex ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccu waayam ndeysaan moom bàcc ma Samba ndeysaan soo xoolee Dugar toujours da koy bëgg a puus da koy puus pour mu génn avertissement soo xoolee Dugar toujours da koy puus pour mu génn da koy puus pour mu génn arbitre bi waat na leen ñoom ñaar arbitre bi waat na leen ndeysaan trois avertissement trois avertissement pour capitaine saan dugaar eh, diggante capitaine di diggante capitaine. ak Dugar. ak Dugar ñoom ñaar. sa ñaari xale yaa ngi si géew gi soo xoolee kii di cap Dugar. Hmm. à tout moment da waaw parce que moom moo avantage. waaw sa temps bi yàggut. juróomi minute la juróomi minute la. Eh, lu la xaj si. la ca xaj bari. lu la xaj na si. moo tax ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi <laughs> ñu ngi leewaatoo. di. cey Bamba. Idi yal na la yàlla defal jàmm. yal na la yàlla defal jàmm yow yàlla na la yàlla may soxna. moo tax ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo. ndeysaan sama bi. xale ñu ngi demee wet. xale yàlla yàlla may soxna. waaw moom yàgg nga célibataire bi trop. tey waaw faaw ñu sargal suñu yaay. tey ku tànnul dootoo tànn. man sama yaay laa tànn di ko sargal. ah sama yaay laa tànn di ko sargal tey. saan. danaa la yaay Diop dundal loo dund doyul. waay waay man nag Met Caama laay sargal. loo ko sargal doyul Bamba. waaw Caama daa yàgg muñ. yaay Ndiobo daa yàgg muñ. bilaay ndeysaan mitaan nañu. mitaan nañ mitaan nañu yi nañ. ñëwaat ñaar. arbitre bi na. capitaine. ak Dugar. gannaaw bañ mitaan moom capitaine. am na ñetti avertissement eh Duga takk na ko plaqué na ko plaqué na ko day tëdd wala tëdd na tëdd na tëdd na Duga daan na ko da kaa takk ne daw biis ko da kaa takk daw biis ko mu tëdd ndeysaan ndeysaan oh waaye nag école de lutte Balla Gaye yëpp nañu waa Caaroy de école de lutte Balla nañu waa Caaroy torop daan nañ leen semaine passée daan nañ leen tey ndeysaan saan mbir